mi di xam ne ne Abdoulaye Seydou Sow ma ngay wax ay dëggam ginnaaw nag moom jëwriñ ji ba ñu ko dalalee ci émission Grand Oral bu réew mi xam le ne ni nag budget bu ministère bi ñu dénk wàllu urbanisme dafa faible maanaam dafa ndaw lool moom jëwriñ ji di xam le ne waa Kaffrine nag bés bu Macky Sall demee ñu ko jooy dee daanu ko jooy kay loolee nag la xam le moom jëwriñ ji ci biir yëglekaay bi lu jëm ci wàllum transplantation rénale bu senegal njëkk réussir moom nag la yéenekaay bi di L'As quotidien xëy daal di fësal ci xëtam bu njëkk Vox Populi na yaakaar kay juddu na ginnaaw rek ndam li nga xam ne tukkee na ci opération bu waa consortium HMO bu Dantec amalee foofee ca l'hôpital militaire bu Ouakam lu jëm ci ni ñuy amalee yooyee opération ñiy may rein ak ñi nga xamante nii rek la ñu koy may lépp rek yéenekaay bi dellu suwaat na ci Le Soleil nag ni Amadou Ba mi ngi ci 3 millions 782 mille 52 ci ay parents yéenekaay bi di xamle ne samedi ji nag Elimaanu jëwriñ ji lancé na liggéey yi nga xam ne moo jëm ci xàll yu gën a mag fii ci mille milliards ci jamono joojee nag Madiambal Diagne ma nga ñuy xamal ana kan mooy Amadou Ba bés bi le jour ni téere nag la xaatim daal di dikk ci jaar-jaaram doxalinam digganteem ak Ousmane Sonko jéego yi nga xam ne rek Serigne Mountakha def na ko ci diggante Macky Sall ak candidat bu Benno Bokk Yaakaar ci biir livre bi Amadou Ba mu naan fa Macky na affecté Sonko waaye bu mu ko rajee ak yeneen ak yeneen sujet loolee lépp nag moom Madiambal Diagne xaatim na ko ci biir téere bi Le Quotidien faylu ko ni moom kay téeméeri laaj yu soxal Amadou Ba Madiambal Diagne samp na ko ko lu jëm ci càccum parrainage xiiroog ngaayoo ak yeneen ak yeneen moom la yéenekaay bii di enquête xëyee niki tey ji yëglekaay bi ne coow li jeexagul dee ci ex allié yi te sax nag collecte parrainage yi yombul benn yoon ci waa Bennoo Bokk Yaakaar xeex bu ni mel yéenekaay bii ne boo moytuwulee nag dina jur musiba ci électorat bu majorité bi l'info yéenekaay xëyee Bougane Gueye Dany mi songu Macky Sall ca open press tour bi muy amal nag fépp foo xam ne rek njiitu réew jaar na fa ci tournée économique bi mu doon amal moom Bougane Gueye teg na fa tànkam mu ñuy xamal nag ni a jëlee nag ñii di waa Benno Bokk Yaakaar ci bopp réew mi te lu nu mel dafa war a doon ab voir ci bépp citoyen moom jiital gëm sa bopp ba tey ci biir yëglekaay bi muy ñaawlu jafe-jafe yi nga xam ne askan wi dañu koy jànkonteel saay su nekk 24 heures ni Bougane Gueye Kaye bàyyilul dara nguurug Macky Sall li ko gën a jaaxal nag moom Gueye Dany bokk na ci ni ñuy jëfandikoo or bi ndax nag jàpp na ne am na lu cay ñuul te it nee na nag bés bu ñu ko jiitalee ci bopp réew mi or moom dootul bàyyeekoo fii ci réewu Sénégal di jëm ca biti réew ci Walf Quotidien lu soxal campagne u gerte gi juróomi ñu yokk ci njëg lii bugaan géy ne lii yabaate dëggantaan la ana ban njëriñ la amal baykat yi te it nag du respect benn yoon ay dëmbuj mu taxaw di tàllal loxoom jëmale ci askanu senegal loolee nag moom la yéenekaay bii di yor yoor xëy fësal ci xëtam bu njëkk moom gaynde wàllu gi di xamle nag ni jiital ko moom ci bopp réew Sénégal loolee rek moo mën a jur coppite gi askan wi namm Les ko xëy tey jii nag sëgg ci budget bi ñu doon nattal ministère bi ñu dénk wàllu justice Aïssata Tall Sall mi avocat magistrat yi di xamle ci biir yëglekaay bi ne ñoom nag magistrat yi leen di tàccu ak di leen ŋàññ waaye nag àdduna du yàgg mukk ba ñuy dégg ñoom ñuy tontu mbaa sax nag ñuy joxe seen xalaat te jëmale ko ci yéen du ngeen ko mës a dégg jeneenu jóoriñ ju bàyyiwul dara ci doxalinu réew mi ci biir l'observateur moom ministre bi ñu dénk wàllum éducation nationale Cheikh Oumar Anne ma nga fa amal nag waxtaan wu yaatoo yaatu wu mu bàyyiwul dara lu jëm ci njàng meek njàngale mi grève yi nga xam ne rek enseignants yi ñu ngi koy amal naqaru xol bu njiitu réew mi jëm ci parrainage yu Amadou Ba loolee lépp nag jóoriñ ji dellu siwaat na ci ba coowal gendarme bii di Didier Badji yéenekaay bi di xamle ne nag salaire am dañu koo dagg ay doomam dematuñu lekkool yër leen page neuf l'observateur ñu wax ci wàllum tàggat yaram yéenekaay bii di réew mi sport dellu siwaat ci Pape Makhtar Sarr mi nga xam ne rek dafa forfait contre Aston Villa ci suñu lamb Alioune Seye 2 ma nga fay kaawoo Modou Anta ci diggante cent minutes rek ginnaaw lamb ji doxoon seenub diggante rëg-rëg ak B52 ña ngay xamle